est-ce que en huit mois ou sept mois nit mën na fi def loo xam ne day indi benn différenciation totale et à son avantage par rapport ak li xew je ne crois pas parce que li dese li dese juróom-ñaar ah. juróom-ñaari weer yi ah ça da nga yeewu mel ni sept jours pour yow donc pour yow votre candidat pas assez préparé non waxuma loolu da ma laaj ci Abdoulaye Daouda wax waxuma ci personne ak personne. Okay. non okay. est-ce que no non non je pense que euh, man sama xalaat bu gàtt. ñëpp ñi nga gis soo xoolee opposition bi ah mais soo Sonko xam nga ni ci perspective préparation la mos nekk depuis mille ans mais ci biir aussi si ñun nga baal ma du ma la ni diw ak diw mais xam naa ñu bare quand même su ma nee bare c'est pas. c'est pas une légion mais xam nañu ñu bari ñoo xam ni. ñu ngi woon ak ñaari ñaari ñaari fer au feu. benn fer bi président su ne finalement day dem garaawul ma delloo beneen fer bi président su demul ma pousse sama kar taxawal mais tout ça xam nga fan lay gën leere parce que comme li ñuy wax les masques vont tomber dans les prochains jours dans les prochaines semaine parce qu'il faut que les gens se déterminent ce pas pour rien gis bon tey su ma juumul président bi parce que aussi benn doon importante kenn waru ko fàtte dañu xamul ne du APR kese moo dem à la conquête daan dafa dem song déséquilibre am mu renforcer wu ak benno ah pousse que le pousse donc euh, képp ku nekk APR instant bi wala ci ay nitu président yaakaar ni mun nga en sept mois nga taxawal fi nga def si lu Macky def Macky Sall deful woon ah ak contexte bi ko Macky Sall defee mais contexte boobu ni mu favorable woon ak bii du benn parce que bu ñu fàttali ñun ci opposition lañu nekkoon instant boobu Macky Macky Sall def loolu tey ñu ngi ci pouvoir mais ku yaakaar ni si juróom benn weer galgal sàmba galgal Demba galgal tour tour lëndam faatu ak kii mooy tax ngay dem non parce que il faut jamais oublier l'arbitre avec grand A c'est l'électorat